le vendredi 2 juin dama jógee sama kër benn xarit camarade étudiant bëgguma tudd turam parce que bëgguma koo exposé mais mi ngi fii ci salle bi ginnaaw autorité universitaire yi bu ñu jëlee décision ne dañuy tëj centre social te joxe wuñ ñoo xamante ne ñii Tamba lañ dëkk ñii fongu leen ñu génne leen ci anam bu doy waar mu mujjee woon daw làqatu si ci benn kër. frère bi nekk fii ci foire ma demoon fekk ji ko pour ma taw ko waaye tamit pour xool nu mu toogee bi ma fa toogee ba ay vingt deux heures di ñëw naa ba yegg sama man liberté six extension bii laa dëkk comme te maa ngi woon am communication bëgguma woon yéeg pour déranger ñi ma bokkal appartement ma ne xaaral ma taxaw ci suuf communiquer ba pare su ma paree ma yéeg parce que comme te xaw na guddi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 ils se sont présentés comme étant des éléments euh, du ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour d'ailleurs looloo tax ngeen di dégg juróom ci sama dossier parce que gendarme euh, gendarmerie bu ñu laajtee les nervis dañu ne ñun ay éléments wu Pape Malick Ndour la Ndour Ndour lañ actuellement mi ngi Sen TV di def émission Ndoumbelane le vendredi 2 juin soo leen ko demee vérifier di ngeen ko gis parce que vérifier naa ko d'ailleurs j'étais même pas au courant après la soog a laaj vérification ñu confirmer ma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 ak fi ñu ma intercepté bu ñu bu ñu yegsee comme les gendarmes yi ñoom dañoo am supérieur ki nga xamante ni moo nekkoon chef élément yi nekkoon foofu moo waral ngeen di dégg turu chef Sow xaw ma sax turam ñu seetaan vidéo bi xam nga de sénégalais ay image yi la gis image yi waaye am na ay vidéo te dinañ ci dikkaat chef Sow moom bu ñu yegsee moom tamit. naturellement il la posé la question ki kan la lan lan lan moo xew. nervi yi ñooy waxaat ba léegi changé nañu version par rapport ak seen version initiale waaye changé wuñu seen présentation ils ont maintenu leur présentation en disant que nous sommes des éléments du ministre de la jeunesse. ba pare ne chef Sow ndax xamoo kii kii mooy Pape Abdoulaye Touré ci ñuy wax ndaw yi ñu génn di taal réew mi di attaquer nit ñi ci la bokk pourtant seen version initiale mooy dañ maa jàpp may manifester mais bu ñu ñëwee ba ci chef Sow dañoo changé version ne kii moo nekk ci réseaux yi di invité jeunes yi à ñu taal yàq réew ma démentir ko ci si leneen loolu ñu wax amul dëkk après beneen nerf bi ne fekk nañ ko sax muy wuy téléphone di jox ay instruction naan kaay leen attaqué fii ñëw leen fii kenn nekk fii ak ñoom seet ma ne ko amul dëkk jox ma sa récupéral téléphone yi nga jox ma ko ma déverrouiller la parce que aw ma temps wu sax coupé sama appel suñu supprimé wul appel bi ñoom di nga gis kan laa doon mu jox ma mu ubbi ko téléphone mu dugg xool dernier appel mu xam loolu amut ma yemuma ci appel bi kese ma dugal ko sama page Facebook ci sama téléphone ma ne ko xoolal mu xool ma dugal ko sama WhatsApp dévrier ko dugal ko ci biir ne ko groupe yaa ngi nii xool ndax est-ce que bokk naa ci groupe bu ñuy taalee mu dugg xool. ñaari téléphone nag laa yoroon doyen Mamadou Mboy li nii du ma bàyyi ma fenn parce que benn téléphone bi vu que de pour ce qui est communication digitale de la plateforme F24 ñoom ñoo ñoo ma joxoon benn téléphone pour li pour yombalal ma liggéey bi beneen téléphone bi nekk sama téléphone privé mais sama téléphone privé bi dañoo gis euh, euh, bu ko euh, chef Sow taalee dafa gis image yu Sonko image yu président Ousmane Sonko la gis ci ci ci ci sama fond d'écran de verrouillage rek discussion yi jeex na de amatul wax yow lu tax nga def yow lu tax nga def Ousmane Sonko mi fond d'écran comme de man euh, apprenti juriste la te jàpp naa ni gendarme yi xëy na ay nitu yoon lañu ma ne ko ah téléphone bi maa ko moom su ma neexee def ko ma neex fond d'écran ba ci Michael Jackson sax su ma neexoon ma def ko fond d'écran Michael Jackson boobu laataa kàddu gi di daanu ci la ñu ci la ma dugal fu boo xamante ne du ko fàtte ko moom chef Sow ki jiite woon gendarme yi nekkoon foofu ba pare joxe ordre ay éléments na leen yóbbul leen ma ko fële ci côté mur bi dinañu wax kat moo ko yónni ñu jagat jagatee ma gendarme yi rek ci lim matoon nañ une une vingtaine wala une trentaine de gendarme nervi yu ma jàpp initialement laataa ñuy yegg ci QG bi romb nañ ay yeneen check point nervi yu ñëw dollee ko ci lim maanaam ñu ñu sékkoon ñëpp ci ma ak ay nervi ci ma matoon nañ cinquante personnes ñu yóbbu ñu taf ñu ci mur bi toogloo ci suuf ma toog ñu ne kan moo la yónni ma ne kan moo ma yónni ci lan parce que nit suñ ko yónnee dafay am objectif yónni ci lan ba léegi ils sont incapables de me yónni ci lii ma ne kenn yónniwum xëy na dañoo nga bëggoon ma ne Ousmane Sonko ma yónni pour ñu mën ko dem jëli ma ne kenn yónniwum sama buntu kër laa taxaw di wuyu sama téléphone et que j'ai am naa am naa ci droit dóori commencé kan moo la yónni teel teel teel teel kan moo la yónni ma du ma yi méttee métti bu ma juddoo sama ndey sama baay ba léegi musuma gis duma yu mel noonu waxuma la ma duma ko man de mais musuma gis kuñ ko dumawee jël seen ay tonfa mooy seen bâton yooyu nga xamante ne dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon dóor damaa baare baare ba looloo indi sama fracture bii ci sama loxo ndax ay baare pour bañ coup yi pour wàññi effet coup yi ci au niveau de mon de visage et ñuy dóor di dóor dem naa ba benn moment su ma so bu ma sonnee pour ma mën a jëlaat tuuti air pour mën a nooy nooyiwaat tuuti. ci vidéo yi ñu ko seetaan mën nañ ko confirmer maa ngi doon naan Cheikh Sow ndax mën naa wax Cheikh Sow ma wax parce que jàpp naa ne su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément bi ma nekk di dóor pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté buy ay quelques secondes dama ciy profité waat xaw a jëlaat air tuuti ma ne ko ndax dëgg ma bëgg dégg wala da ngaa bëgg ma fenn mu ne ma wax ma dëgg. ma ko dëgg bi mooy kenn yónniwuma kenn yónniwuma jox naa la sama téléphone vérifié nga kenn yónniwuma j'avais que libre maa amee préoccupation ñu jàpp mu ne acawaat gars yi commencé dóor man daal dóor nañ ma ba benn moment di fàttali ne vingt trois heures maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque deux heures moins te amul benn moment bu ma toog noppalu amul vingt trois heures ba deux heures moins deux heures du matin ñu may torturer après ci laa jékki tay parce que dañoo bëri wër ma nervi yeeg gendarme yi yëpp ñoo ànd def coalition doon ma torturer donc ñu ñi wax ni Pape Abdoulaye Touré ay nervi ko torturer ils n'ont pas amul euh, wax nañ dëgg ñu wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturer wax nañu dëgg. naka ñaari identité yi ñoo def coalition doon ma torturer buñ may dóor flash yaa ngi tàkk gisatuma dara parce que projecteur yi sama bët bi man daal maa ngi baare rek man daal maa jékki saa yi gis xaali birig buñ ma sànni mu jóge ci ginnaaw gendarmerie ñëw ci man moo waral sama bopp bi xaroon bi ma dóoree birig bi ma ma ma tombé dans l'inconfiance ma xam li ma gë li ci gën a metti mooy bi ma xamee. taxul ñu arrêté taxul ñu tiit taxul ñu raf dañu profité ci xëm boobu mu xëm dóor ma ay monat mooy monat yooyu ngeen di gis ci image yi seere monat te période bi ñu may monat fekk na damm naa monat yi damm damm yu leen boole seere ko bu mu dëgër monaté ma par derrière monaté ma sax devant kon moo mën a protégé wu par derrière lañ ma monaté am nag accès total ci sama tête ci sama kanam ci sama bopp ak ci sama ay articulation def ma dos au sol ñoom seen ay terme la parce que dégg naa leen koy wax mettre leen ko dos au sol maanaam jaaxaan loolu bi ñu ma jaaxaan loowee bu muy ximiliku dama fekk benn gendarme kenn ci ñoom te jël seen ram ji diis yooyu wallahi fii la ma ko teg ci baat ci diggante dënn bay baat pour neutraliser sama bopp j'étais au ma gis ñaari gendarme ku nekk jàpp te ñaari loxo bu mu dëgër sama ñaari tànk yi ñeneen ñi wër ñi ki jëloon tànkam teg ko ci sama baat bi dafa jël gutu dix def ci ndox def ci suuf suuf boobu ngeen doon gis ci sama yaram ci image yi boobu la parce que xam naa bëgg nañ ma yee xam nañ nga xam naa bëgg nañ ma yee ñu jaaxaan loo ma di ma sotti gudd dix litres bi ak suuf si muy dugg sama gémmiñ dugg sama ay bët fees dell ci sama ay nopp man bu muy ximmiliku wallahi azim damaa fogoon ni maa ngi dañ ma dañ ma mujjee tëmbal ci géej ba dem maa ngi nekk di law pour man dama nekk di noyyi ah, bu muy ximil ko te man dama amee boobu parce que j'ai failli deux fois moo tax bu ma ximil dama foog ne dañ maa sànni sax ci géej gi buñ ma sottee ndox ba ma ximil ñu yëkkatiwaat ma tafaat ma ci miir bi kan moo la yónni kenn yónniwu ma ñu continuer di dóor di dóor ci ay articulation sama tànk yi dañ ko mujjee tàllal dama toog ñu ne ma tàllalal sa ay tànk ba ma tàllal ko gendarme ma taxaw xaj ci tonfa ba loxoom bi sës mu dóor ci tànk yi looloo indi fracture bi ci tànk yi dafa dóor a dóor ba su ma bànkee samay tànk ci genoux yi lay dóor ñu duma ma duma yu méttee méttee méttee dans des conditions atroces inhumaines bi ma demee ba sonn ma ne leen léegi est-ce ma rey ndax ma noppalu kenn ci gendarme yi génnee pistolet bi teg ko sama bopp na ma ndax ñu ñuy rey ci manifestation yi depuis deux mille vingt ak léegi yaa leen gën ne ma soo waxul ku la dañ lay rey te du mujj que ñu ba léegi mujjul fenn lii gendarme moo ko wax. je défie la gendarmerie nationale du général Moussa lii teg ma pistolet ci bopp. après bi ñu ma dóoree dóor dóor ci biir groupe bi ma doon dóor gis naa benn petit groupe bu doon décalé wu di sori groupe bi ma doon dóor mais bu ñuy dem kenn mi ngi laaj keneen ki ndax essence bi ñëw na bu ko déggee moomu essence damaa foogoon nag seen moto yi lañ ko war a sol wala seen oto yi mais nekkite essence bi beneen finalité la woon te bu ñu jàppee ba yóbbu ñu kaam ci laa dajeeg benn kenn ku ñu jàpp. expliqué ma ne ma fu ñu la doon dóoree sama cousin fa la dëkk sama cousin moom ma wax ci noppam sama gémmiñ ci gémmiñam sama nopp mu ne leen amoon na groupe ci ñenn ñu war a dóor yu ñëw ci côté fenêtre am di laajte ndax cafaaf gi ñëw na lan mooy jum lan mooy jubluwaay bi pour ñu taal ma après ñu ne man damaa bëggoon taal benn kër responsable ma man manœuvrer essence bi far mu jàpp ma lakk lii moo nekkoon seen objectif tentative de meurtre yàlla ma dimbali de wallaahi ak taxawaayu sénégalais yi ak ñaan ñi nga xamante ne xëy na xamuma leen sax ak sama ay ñaan yu moo tax tey ma gàmb sama bakkan ba toog di jàkkaarlu yéen di waxtaan di leen nettali trajet yi bi nga xamante ne dund naa ko ci sama propre dëkk après dóor yi ñu metti du seen am benn gendarme du seen kenn ci voisins yu nekk foofu mu taxaw ci fenêtre ci kaw ci étage bi di filmer taal flash am flash boobu lañu seen mu daw ñëw si mais est wàññi dóor yi parce que am na ko commencé filmer quoi sinon dinañ ci am problème kooku noonu xaw ma ko xaw ma kan la waaye xamal ni man Pape Abdoulaye Touré su ma toogee fii noonu ba léegi ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama ay ñaari wéy ñaar yi ma doon ñaanal moo bu ñu gisee caméra ñu gisee flash boobu ci wàññi dóor yi ba pare jël décision à partir de ce moment ne dañ lay yóbbu commissariat brigade bu Foire ñu ligoté ma par derrière un citoyen sénégalais sans défense de surcroît un étudiant amul benn arme ci moom fekk ñu dara ci man à part sama téléphone ak sama portefeuille amul leneen benn élément bu bu ma mën a bu compromettant bu ñu fekk ci man ñu monoté ma par derrière non seulement monoté nañ ma amatuma benn défense. ñu jàpp ma di ma brutaliser di ma torturer torturer yu méttee méttee métti après ci la ñu seen pick-up bi ñu yóbbu ci ginnaaw sànni ma ci ginnaaw comme xar man maanaam tabaski su jotee na ngeen gis ay xar yu ñuy takk sànni leen ci ginnaaw 400 baa comme noonu lañ ma def day am na photo bu may bu buy wane kii bi sama kanam feeñu ci am na image yu ma ci gis photo boobu ci biir pick-up bi moom noonu lañ ma sànnee ci ginnaaw. waaye bu ñu ma sànnee ci ginnaaw am na en attendant ñuy régler dañ koy yóbbu fii nañ ko kii ñuy suivre ay instructions ñenn ci gendarme yi dañoo continuer di ma torturer ba ci ginnaaw pick bi am na yenn soo ay sio yoo xamante ne couvert bi pour nga tëj ko day am benn verre benn benn weñ bu muy àndal nga koy da nga koy kii waaw gis nga verre boobu xam nga day kii kii bi weñ boobu day dindeeku wallahi azim weñ boobu lañ dindi rek benn gendarme dindi fekk mu ci biir oto bi mu koy dóor ci kanam ba dama jël sama kanam rëpp ko ci ci ci ci ci kat ci bi ci ci kii pour mën a rawale sama kanam ndaxte boobu temps sama kanam man xamatuma lu muy niróol ndaxte recevoir naa benn coup de pied boo xamante ne ci sama bët bi ba sama bët bi fa la jaaree woon ëfu ba ba tëju moo tax à benn bët laa doon xoolee. te bët bët coup boobu lu tax ma jël ko mooy ci biir torture yi dafa am benn nervi bu xàll gendarme yi ñëw ba ci man jël la ko tam génnee pompe à gaz pompe ma ko ci ay bët boobu fekk nañu sotti ma ndox ba pare ba pare imposé ma ne ma da xool par force ñu foto te pompe à baa ngi dugg sama bët amatuma usage de mes mains parce que mënate nañ ma par derrière may wut fu ma làqatu ba pour bañ ñu yàq sama kanam bi ñu may wut comme kañ la wallaahi laa di fu ma dem pour rawale sama kanam bàyyi leen ak sama yaram wallaahi azim ci laa ci laa dajee ci benn tànk gendarme bu sol ay ramjees wallaahi kuul ma dugal bule coup de pied bu la ma dóor ci bët moo waral sama bët bi amoon ay jafe-jafe ba ci lendemain bi lañ ko mujjee lañ ko mujjee ubbi ci ophtalmologue bu nekk section de recherche bu bu Colobane ni lañ ma yëgalee ci pick bi ci yoon bi maanaam diggante fi a ma jàppee liberté six extension ñu jël VDN bi war a dem brigade bu foire teewul du ma yaa ngi continuer ba léegi de je vous parle de deux heures moins là on vingt trois heures ba deux heures presque une heure et demie et quelques ñu nekkoon quatre gendarmes yi ñu ma boole woon ci gànnaaw dama da ngay tëdd nag ñu tëddloo ma parce que dañ doon bañ xëy na romb ay manifestants et tout ça ñu mën ma xàmmee ñu attaqué leen ñu tëddloo ma ci oto bi. continuer di ma dóor dóor yu méttee métti ba mujj gi chauffeur bi doon dawal moo wàcc moo arrêté oto bi wàcc ne ki doon ki ma doon dóor ci ginnaaw arrêté dóor yi parce que euh, su deewee dinañ am problème kooku teg tonfaa jël ay loxo sama sikkim yi ak sama karoot yu ma amoon ci la doon jàpp di xëcc di bugg di jàpp di sëkk di xëcc gendarme li may wax nii ay gendarme ñoo ko def que ce soit clair ay gendarme ñoo ma def li may wax nii ci noonu dañ ma yóbbu brigade bu foire bi ma yegsee brigade bu foire ku ko xam xam nga ni étage bi foofu la ñuy recevoir parce que poste bi fa la nekk bi ñu yéegee ci escalier yi ma war a dugg ci poste ba fu mu ne ñu fekk fa benn gendarme bu doon ataaya ci poste bi mu jub doon joxe kaas pour dellu si bu muy bu muy avant muy dellu si ci yoon bi lañ daje ci couloir mu ne eh, kii daal ñu ne ko kii de benn manifestant wallahi tànkam la yëkkati maa ma mën a teg ci ginnaaw mu yëq ma ko ci biir ba ma euh, respiration ne ma loolu ba pare ne loolu mooy participation am ci mbir mi gendarme ne ma sama participation ne noonu ndaw talam merci beaucoup ma yegg ci ci poste gendarmerie foire ñu jël sama ay ñaari téléphone jël sama portefeuille parce que loolu rek laa yoroon di fàttali Sénégalais yi ne kagul sax yoruma ko wallaahi laa masque masque awma ko fekk ñu dara ci man ku doon kuy manifester dina dem sans masque ak man ni ma xamee ci réew mi sañ naa jël risque bi dem ci ay manifestation yu ñu interdire ba pare te du ma takk masque balaa ñu may xàmmee di ma rey xalaatu ma même bu dul loolu sax ñu ay kilifa nañu ci réew mi am na yoo xamante ne jombale nañ ko suñu bopp parce que bëgguñu koo servir kaw loolu ci lañ tekkee monat yi ci condition yu métti nag ndax monat bi mu ngi fekk maa ngi dem ba loolu laal ci man day métti sama yaram bi am ay góom un peu partout bopp bi di xel yi sama karaw dafa yàgg sëkk dama yàgg sëkkal karaw mais ku taxaw sax gis ma di nga gis deret bi dafa mujjee coaguler ci ginnaaw ànd ak karaw gi ñu daal di may tekki dindi monat yi sànni ma ci seen cellule ba léegi kenn waxuma vous êtes en état d'arrestation ba léegi notifié bi ñu ma sama jaar daal bi ñu dugg see ci deux heures du matin et ci la benn pick-up ñëw gaare yëpp ay gendarme yu jógee section de recherche bu fédéral bu nekk Dakar fii après laa koy soog xam si gendarme bu euh, chef de poste bu mu ñëwee tijji cellule bi ak yeneen manifestant yi moo fekkoon dama tiit tellement que bu ñu ñëwee ma gis ma gis leen soo ñu tëj dama foogoon ne dañ may vivre nervi pour ñu terminer le travail. ma wax ñi ma bokkaloon ci cellule bi ne leen maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci mouvement Sénégal Moment Priorité bés boo leen ma gisatul ngir yàlla génn leen ngeen témoigner ne brigade bu foire lañ ma jëlee sànq ma parce que ñii dama jël xaw ma leen te soo leen ñu ba ci chef de poste maa ngi ko wax ne ko ñii ñii maa ngi nuyu maa nekkoon dañoo ñëw pour rey ma mu ne ma ñëwee gendarme lañ fédéral lañ nekk dañoo yóbbu brigade bu fédéral ñu monote ma. sànni ma ginnaaw bi encore direction brigade bu Faidherbe bi ma yegsee ci brigade bu Faidherbe lii may wax commandant bi jiite Faidherbe ki nga xamante ne moo jiite Faidherbe mën na koo témoigner parce que daf ko fekkoon ci ay nelaw sax moom mu wàcc jóge ci kaw wàcc bi ma yegsee bu ma gisee lu mu ma njëkk a def massa wax massa massa massa ma gis benn tristesse ci kanam bu ma ko exposé nag parce que jaral na leen ko def dem ba dàq ko te ku baax ku am ku am ku nitee gendarmerie bi lépp bon de am na ñoo xamante ne mérité wuñ sol toli Sénégal am na yenn métiers yoo xamante ne ça appartient aux hommes de cœur gendarmerie ci la bokk santé ci la bokk garde pénitentiaire ci la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yow sax balaa nga koy def dañ la war a defar formation psychiatrie psychologie nga mën a wax ak nit ki mën ko aborder mën ko stabiliser nii laa yegsee ci brigade bu fédéral commandant bi photo photo bopp yi photo fra euh, néew yi néew yi nekkoon ci loxo fracture yi photo góom photo ma gis condition yu ma ñëwee maa ngi doy xel mu sedd lool sama yaram bi yëpp nekk suuf mënuma je voyais à peine quoi j'étais à moitié aveugle moom ma fonaay ba pare mu yónnee ko ay supérieur am que ça soit muy général Moussa Fall ak le procureur de la République ñu notifié ma ci guddi gi que je suis en état d'arrestation notifié ma sama garde à vue au premier chef d'inculpation bi mu ne que wax participation à une manifestation non autorisée point dama ngi tëdd xaaral suuf noonu lañ soo mën naa lool waaye wallaahi guddi googu dama ko fàtte te guddi gi ba fajar nelaw dama dem ba ci guddi gi dama amee fièvre di lox di kat-kat man comme di guddi googu laa deewul ah am naa yaakaar bu du fan di yuuxu ci biir cellule bi ndekete gendarme yi dem nañu tëdd bu yàgg muy yuuxu pour ñu yóbbu hôpital ndax tellement que douleur bi ma doon sentir sama yaram bi maa ngi leen koy maa ngi koy wax de mais mënoo leen mënoo leen mënoo leen ko xam ku ko dundul mënoo ko xam ma fanaan biir gàtt bu Faidherbe le lendemain ñu jëlee ma waat Faidherbe xëy na ci la suñu doyen yi commencé may wax sénégalais image yi du man maa ko jël du sama mbokk moo ko jël man dañoo confisqué woon sama ay téléphone ba léegi sax nii ñoom ñoo ma photo ñoom ñoo ma ñoom ñoo génnee photo yi lan lañ ci jublu woon lan moo nekkoon objectif bi ñëpp xam nañu bu ci njëkk humiliation booy bi doon wër ci plateau yi di wax booy bu ñu sonal fàtte ñu dara ci parce que ñan ñoo ñan ñoo publier ay anitages je pense bëgguma leen sax may bëri di tudd seen mais ay influenceurs gouvernement bi ñoo ko publier ñoo partagé image yi mais ku jàpp jàpp nañ taal université dégg naa am na yu bëri yu ci dégg dinaa ci dégg <coughs> bu ñu xamee ne affaire bi vidéo euh, photo yi génn na et que ci xaaroon luñ ci doon xaar amuñu ko ci parce que luñ ci doon xaar mooy xoppetal sénégalais yi ba dootuñu amaat fitu génnaat ci manifestation yi pour ragal ñu def ma ñu def leen li ñu ma def liñ ci doon xaar mooy humiliation waaye peuple bi taxaw temm looloo tax ñu jëlee ma section de recherche bu feneen bu yóbbu ma section de recherche bu Colobane je on est le samedi le lendemain à 13h le samedi 3 bi ma demee section de recherche bu kii bu Colobane fa la ñu njëkk a defaree sama ay premiers soins ñu defal ma rajo gis na dama am ay comme que amuñu woon fu ñu plâtrer amuñu woon bloc ñu évacué ma ci saa si yóbbu moom fi nga xamante ne mooy hôpital principal au service des urgences Dakar li ma yeggee foofu médecins yi dañoo bañoon ne doon duñ malade ndax conditions yi ma ñëwee foofu bëgguñu ma woon jël bëgguñu woon am am ci responsabilité il a fallu que bi ñëw exiger à ce jël ñu gën a gaal ci li ma jël yóbbu ma bloc plâtre ma ñëw bopp bi bandage ko euh, góob yeeg yooyu mu nettoyé ko bandage ko aussi. médecin yi dañu bëggoon retenir à l'hôpital principal parce que nee nañu sama état de santé permettre ma may jël foog ñu hospital yi jëm au service comme te ay takk der ñoo ma yóbbu woon muy ay éléments de la GIGN ak waa section de recherche def ay kii sécurité non mais ñu terroriste la ñuy yóbbu di xàll yoon yu dem kenn du ma jege kenn ma photo parce que ki ne voulait pas que photo jéem ñu toog di saraxu di saraxu di saraxu ba médecin bi mujjee maa bàyyi ay deux heures du matin ma delluwaat section de recherche ak sama ay damm-damm ak sama ay métit nii la mbir mi demee. nii kese la mbir mi demee nii laa dund xëy na du ñu mën a étaler lépp tey te que dinañ mën a am occasion à travers peut-être yenn sorte médiatique yi ñu war a def dans la semaine a gën ci mbir mais lii laa dund man Pape Abdoulaye Touré ci sama propre te kenn tegu ma ko ku dul la gendarmerie nationale du général Moussa Fall je le défie le ministre de la ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour bi yebal nervi ak ñoom seen te ñoom ñëpp responsabilité bi fenn rek muy le président Macky Sall muy le président Macky Sall donc euh, ci gàttal daal xam naa ni li ñu bëgg a wax yëpp suñu xool jeex na lool suñu sañoon gën a yaatal ak yéen mais soo leen ñu ko mayee ñu tënk ko yemale ko fii rek parce que bëgg nañ dans les jours à venir ñu revenir ak sur les conditions de revenir at ci enquête parce que lu ñu doon wër di wax naan Touré lii la def xam nga jàpp nit ba pare di ko waxal dafa yomb de jàpp nit tëj laa miñam amul fenn fu mu wootee ngay wër di ko accuser ba ñuy dégg ay ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome dem édition spéciale ci TFM le même jour samedi bi ñu laaj ko ci sama question mu ne dañu maa jàpp ma nekkoon sur le point pour tal kër responsable du gouvernement allahu akbar wallahi benn beneen almet fekkuñu ko ci man kon xanaa kuy taal di nga yor essence wala nga yor beneen almet wala nga ànd ak ay nit man damaa am fit boobu am naa fit de waaye aw ma fitu réew mi yëngatu man kese may jug di dem ci ay këru responsable naan dama koy taal dama xam sax fu ñu dëkk mais comme te def nañ ma lu ñu ma def il fallait que ñu trouver excuse lu ñu teg ci loxo sénégalais yi pour ne kii lii ñu ko def c'est parce que lii la et même su loolu amoon même ma doon jiiñ su fekkoon dafa am mais charte réew mi dafa tere ñu torturer nit parce que soo torturer nit bépp information boo ko jëlee c'est information qualifiée amul benn valeur juridique même su fekkoon ni lu ñu ma doon tuumaal te mu nekk ci ay tuuma kese ndaxte jàpp nañu fi placé nañu malgré notre état de santé fii de tellement ñun ñu 12 juin laa waroon def sama ay de fin de cycle ku am examen dans deux jours kan la manifeste tant tant que ñu wax lu yenu maanaam te yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat parce que am nañu ay preuve ba ci mbir bi ñu jàpp am nañu seen ay image ndaxte li ñuy def léeg-léeg benn jéeg mu jur toole ci réew mi ñu dem toog ak seen yenn xarit am diw ñoo ko jàppoon diw ñoo ko def ci loolu lañ def ba collecté ay image ci donc foofu la ñu yemagum pour le moment par rapport